kontaan nañ tay ñoo fi ministre de l'industrie et du commerce euh, participer à l'ouverture donc euh, ndaje bo xamné ne organisé mu nek euh, lo xamné évaluer un peu politique qualité bo xamné Sénégal définir depuis 2017 donc amono ay partenaires yu ñu comme BAD la banque africaine de développement ak fondation Bill d'appel na ASC bu baax pour ñu xool ñom da leen gëna pour contrôler les contrôler produits pour nous des ay décisions ay certifications sur les produits et les services et même les céréales donc tay évaluation la won bu ñewon ci di am yaakaar tamit euh, conclusion yi fi nar a tiré tey C'est xalaat bi parce que un groupe d'experts yu bëri noo fi dajé mi consommateurs yi mi parlementaires yi mi partenaires techniques et financiers ku nek ñew nga ak les experts de de la qualité et des infrastructures ku nek ñew na indi sa l'évaluation def un euh, bu politique qualité yu ñu depuis 2017 te am nañ si yaakaar vu ASN expérience bu ñu am par rapport à ce domaine avec tamit partenaires yi taxaw lañ en tant qu'État et ministère chargé de l'industrie et du commerce et du secrétaire d'état des PME et des PME, nous avons xam en termes de conseils recommandations et stratégie ñun pour essayer de renforcer l'ASM pour mën jouer ce rôle parce que la performance sous Amé, si entreprise La performance su tamit administration publique Nous am fait un waxe fi tey euh, ñun ministère du commerce et industrie

am na certification boo xam ne ISO 9001 dina mën mesurer la performance mooy xool tey organisation comme ministère wala entreprise wala organisation na leen def ba par rapport à son développement je pense que tey ñun ministère du commerce daan daan ko jël comme premier exemple euh, nous xool jox cër boobu ASM nous évaluer un peu notre ministère nous avons lan mooy jafe-jafe ak tamit doole ak tamit fa leen amee ay faiblesses pour mëna développer ministère bi. Euh, xaatim nañ lu wara tolok ñett ak norme ci secteur yépp muy secteur euh, bâtiment muy ci walu lu ñuy lekk euh, muy muy secteur santé muy ci produits chimiques yi électrotechnique et cetera. waaye itam ñu def li ñuy woowee promotion de la qualité à travers des séances lu ñuy def ay ay ay ay séances de sensibilisation waye tamit formation formé nañ notamment ñi nga xam ne yëngatu ci walu mbay mi walu horticulture. former ñi nga xam ne ñoo nekk ci laboratoire pour ñu mën a accréditer seen ay laboratoire accréditation laboratoire dafa nekk lu am solo ndax moom moo lay permettre tey boo defee analyse fii ci Sénégal boo demee bitim réew war faa fajoo analyse yooyu nga mën koo utiliser ñu bañ a defaat même analyse yi foofu moo lay wan ne analyse yi lu baax la diagnostic bi ñu ci def diagnostic bu baax lay nekk ba du indi ay ay ay ay ay ay ñaaw ay ay njuumte ay ñaawteef waaye li ci gën a am solo ASN dafa teg ay programme de certification certification produit euh, ci ndimbalu BAD tey système ouest africain muy nga xam ne organisation bi nekk Afrique soowu jant di def accréditation accrédité ci ASN ci wàllu certification produit waaye li gën a amati solo nga xam ne lu ñu soog a commencé la ci ASN muy certification ISO 9001 comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp te euh, bu yàgg ba léegi ku ko bëgg a am ci fii ci Sénégal euh, da ngay euh, jéegaani ay organisation yu yu yu féete bitim réew tey ASN taxawal na système programme boo xam ne mën nañ joxe ay certification ISO 9001 te une certification ISO 9001 yooyu am nañ même reconnaissance bi nga xam ne euh, organisation yi daan jóge bitim réew euh, moom la ñu am tey euh, mu nekk ministre bi monsieur le ministre de l'industrie et du commerce Serigne Gueye Diop nekk loo xam ne rafetlu monsieur le secrétaire d'État au PME monsieur Ibrahim, Thiam tamit rafetlu ko joxe tam seen engagement que lépp luy jóge qui ci waxtaan yi am fii ñoom dinañ def seen kéem laay kattan ba gouvernement Sénégal Euh, taxaw euh, jëmmal ko euh, jàppale ASN ba mu atteindre niveau bi nga xam ne moom la ñu bëgg muy niveau boo xam ne ASN dina mën a porter politique de développement bu gouvernement au Sénégal jàppale administration bi ñu xoolaat seen performance ba waaye jëfandikoo yi muy ñun citoyen ñu gis suñu bopp ci administration bi waaye tam secteur privé bi ñu jàppale leen ba ñu compétitif ci marché national waaye itam ci marché international ndax loolu moom mooy indi prospérité bi nga xam ne moom la ñuy wut